asalaamaaleykum mbokk internet 313 digital comme niñ koy amalee saa su nekk di waxtaanee actualité euh, tey doxante nañ ñëw ba fii nii jardin public ñaari tali ngir fas ne taataan li nga xamante moo di actualité gannaaw ba nga xamante ni kii di leader bu Pastef Ousmane Sonko demoon na foofu sa Kër Massar amal fa grand métin bu mag a mag daal di fa yëkkati ay kàddu bokk na si li nga xamante ni moo di convocation bi nga xamante ni war na ko wuyu ji nee na jël na ay décision que di du dem wuyu ji loolu bokk na si li ñu war a waxtaanee ak li nga xamante ni bokk na si muy li nga xamante ni testament la boo xamante ni def na ko ne défier na Macky Sall euh, que ni fas na confronter ak moom mu nekk ay kàddu yoo xamante ni euh, nekk na lu xaw a doy waat donc duñ def lu dul euh, ànd ak suñu caméraman dem taataan réaction yu population sénégalaise ñu xam naka lañ dundee yooyu la kàddu yu Ousmane Sonko yëkkati moom mi la di leader bu Pastef donc duñ def lu dul ànd ak suñu caméraman dem lu mu wax yoon la. boo dul criminel ñu yóbbu la ci criminel yi da koy bañ. waaw wax dëgg yàlla Macky Sall moo war a teg dossier bi ci suuf mu noppal nit ñi nit ñi dañu sonn dëkk bi dafa metti dund bi dafa seer location yi seer nit ñee ngi liggéey amuñu xaalis jeunesse bi ñu ngi taqale ñaata personne ñoo dee ci lu ñàkk fayda lii lii Sénégal bi yëpp xam nañ lii dara amu ci man Macky Sall 100 pour cent laa woon ñëpp xam nañ ko fii mais dossier bi moo tax ma bàyyi ko dossier bi dafa foo na ko teg si suuf mu noppal ko noppal nit ñi noppal sénégalais yi noppal boppam loolu la war a def nit ñi dañu sonn ci dossier bi. xam nga am na fooy looy sekk nit boo demee ba mu puus la ba nga sës ci miir bi dangay ngay riposter yow mii sax am na lu ñu lay attaqué di nga toll foo xam ne nit nit kese nga. foog mu fippu wax na dëgg bu fippuwul dañ koy sàkkal pexe balaa caar mu fippu benn yoon waaw. kon yow ànd nga bu baax a baax si le fait que Ousmane Sonko fipp xam nga ku nekk ak sa problème. nit yaa xam li gën ci yow. moom dem na ba xam ne sës na dafa war a fippu. fépp na kon moom man ànd naa ci. Ah, man de jàngat bu ma ci am mooy bu dee defoo dara da ngay dem xool nga xamante ni jàmm daal ci la yépp xaj nga xamante ni nit yi daal day leer loo gis si àddina day leer bu dee defoo dara nga dem wuyu moo gën ay parce que loo gis ay moom yàlla nañu ci yàlla musal nga dem rek moo xam moom bu demee dina xam parce que population bi yëpp a ngi si ginnaaw te xoolal dëgg rek mooy njëkk mooy mujj waaw. àddina bi metti na te kenn dofatu Macky mi man fana na du ma Sonko du ma Macky Sall mais xoolal justice moom boo ko yow soo xamee dëgg bi nga xam dëgg na dem rek wuyu nga xamante yëpp ay leer àddina moom ah jubalal rek bu dee yow maanaam ñu jiñ la dara xoolal yàlla xam na dara du la na dem su demee rek maanaam jàmm sax day am te ay yàlla nañ ci yàlla musal si jàmm la ñuy amee lu neex ci jàmm la ñuy amee ouverture ci jàmm la ñuy amee xaalis. man de kàddu yooyu bi ma ko déggee dégg naa ko journal mais rafetlu ko parce que ñoom ñaar ñooy xeex mais lu gën a garaaw mooy askan gi ñoo si gën a jëlee ay blessures ñii dañuy dee. ñi àddina bi xoolal mais dafa metti kese pour nga lekk sax problème la léegi boo si raxee loolu lu muy mel. moo tax suñ mënoon rek nañ dimbali askan wi parce que ay du yem ci borom te ñu ngi koy wax di ko wax di ko wax te yàlla nañ ci yàlla musal ci ay te xoolal maanaam seytaane day xam te bu xamee rek askan gi mooy loolu ñooy ji pour man askan gi rek ñooy ñoo si ñoo siy loru parce que xoolal ñi am xaalis ak ñu amul doole bu ëpp. ñu amul xaalis moo ëpp ñoo ñoo ñoo lañ war a xool ñee suñu añee di ñu reer dañuy dem seen doom yi dem euh, Amérique di jàngi askan bi yow public sax mënuñu la si dugal moo tax nag suñu yeboon nag nañ def nànk xoolal maanaam àddina ah ñu nekk si suuf ñooy gën a souffrir ki ne ñu nekk si kaw ñoom nag askan bi nag ñoo xamul loolu ñii dañuy xeex bu ñuy xeexee seen doom yaa ngi Amérique Belgique kanada pauvreté yi gën a dee pour nga añ sax problème la pour nga am saabu sax problème la pour nga am sax yére problème la léegi nag moo tax askan bi suñu muusee dañuy ubbi seen bët ku ne dañuy dem politique man ah pour man nga jàpp sa ñàmbur bu ëllëgee doo sonn. gaa yi dañ ko bëgg a suivre réussir te wax dëgg yàlla ñun jeunesse bi dèjà ñun ñu ngi ko seetaan su ko waxul woon sax ñun dëgg yàlla tamit ku gis dëgg dëgg bi dafa leer xam nga ku bëgg a gis dëgg tamit di nga ko gis mais ku mu neex tamit tax say bët xam nga bañ a gis xam nga voilà quoi gumba gumba loolu parce que tamit fii waa ji li mu ñu bëgg li mu ñu ñu bëgg imposer ku wax ñu ne rafet dëkk bi ñu ku wax ñu tëj ku wax ñu tëj xam nga voilà quoi ñun Sonko ñun benn bénédiction lañ ko jàppee parce que tamit voilà quoi ça tombe du ciel ñun yàlla moo ko may xam nga te ñun voilà dëgg yàlla lu ma gis daal war nañ mën a def lu ñu mun suñ kenn ki laay kàttan ba xam nga mun ko protéger parce que moom lañu am xam te suñu yaakaar yëpp jël nañ ko def def ko si kawam lu mu lu mu wax noonu dañu que tamit su dem dem sax ñun dañu ko ko bàyyi mu dem. su naroon dem sax ñun dañu ko dafa leer ñoom li ñu bëgg mooy teg ko instant yii te ñun wax dëgg loolu duñ ko seetaan. Macky Sall moom moo ñu defee Macky Sall moom moo ñu defee ñun defee woon ko de moom moo ñu defee parce que xam nga les jeunes si Sénégal tey la defee parce moom moo bëggul jàmm si réew mi su bëggoon jàmm si réew mi dina xool lan mooy ah, lan mooy indi jàmm si dëkk parce que xam nit doomu jàmm bu toog deful dafa métti dafa métti si xol tamit nag ku nekk na ko xoolee boppam quoi su nekkoon par exemple ko def parce que Sonko tamit dafa am njaboot xam voilà doomu jàmbur nga jëm bu ko jiñ viol xam nga ñun duñ ko teg duñ ko seetaan xam ko balaa mu kaa def ñun def nañ ko moom dafa wax rek mu jëm kaw mais moom balaa mu kaa def ñun def nañ ko ba pare te pare nañ waaw kàddu yooyu man de rafetlu ma en tant que citoyen sénégalais bi nga xam ne maa ngi xam actualité li xew ci dëkk bi comme nous sommes dans un pays de démocratie yoon am na si wàll dem na am na benn contentieux bu mu war a rek régler ak benn jeune fille ñu ne ko wax ne dañ fa war a dem tribunal ñu war ko waatee man li ma jàpp ne dafa war a dem uyu ji comme tous les Sénégalais euh, bi nga xam ne am nga problème yaakaar justice te gëm ko nga dem uyu ji euh, loolu daal jàpp naa ne moo gënoon na rafet si pays boo xam ne démocratie la coow li nag bëri na ñi naan ay complot ay man gawma loolu je ne crois pas à ça parce que yeneen Sénégal yaa ngi fi di am problème di dem devant la justice ñu di ko régler ki nga xam ne am na dëgg ñu jox ko dëgg ki nga xam ne amul dëgg ah, ñu ñu daan ko eh, teg ko ci yoon waaye nag en tant que leader ki nga xam ne tey gone yi ñu ngi la topp nga am benn code de popularité am na ci kàddu yoo xam ne ni ñu rafetlu nga di ko yëkkati en tant que citoyen sénégalais. non kàddu yooyu ba léegi ñaawlu rek waaye kàddu yooyu comme ni ma ko waxee si suñu sama wax ji léegi. si pays démocratie loolu jarut mu koy def mais politisien la aussi dañoo jàpp moom moment boo xam ne si 2024 lay jëm si rapport de force la ne mais menaces yooyu dafa ëpp quoi parce que état kenn du ko menacé boo ko menacé leneen mën naa am bu sedeewut ça devient quelque chose lu lu garaaw lu yéeme ngay gis mais kàddu yooyu moom kenn du ko dégg en tant que sénégalais parce que dëkk bi jàmm ka fi xew parce que ku xool li nga xam ne ñu ngi si sous raison bi lu fa xew nga xam ne dëkk bi jàmm man nag am na leneen ma ciy yokk parce que Sonko man discours am dama ciy dégg toujours temps miy wax ne Macky Sall bi fal ay nit si ay waasoo la koy fal loolu d'accord ñu si en tant que pays bi nga xam ne multi ethnique ci lañ nekk pays dëkk boo xam ne nii tey ay xeet yu bëri fa fii y a pas xeet ñëpp benn la c'est c'est le Sénégal kenn c'est la nation sénégalaise la wax kon na dem uji yoon ñu atte ko bu fekkee moo am dëgg na ko yoon ndax am jox dëgg bu fekkee amul dëgg na ko yoon teg ci yoon Sénégal nekk si jàmm bu waree dem élection dana fa dem warul dem élection loolu moom ça dépendra de la justice sénégalaise te justice bi boo ko fi tegee da nga koy gëm waaye boo ko tegee ku ñëw nga a baaxul kon ça devenir aussi buñ ko àttewul nag ñeneen daneen fi am problème bu toll ni wala bu gën a rëy bu subaa duñu la àtte te boobaa ça devenir kaw d'abord ñun jàmm lañ bëgg ci réew mi jàmm lañ xam itam xamuñu safaan ba bëgguñu ko itam Eh, te Sonko Macky Sall jàmm rek lañ war a woote jàmm rek lañ woola war a woote ci réew mi ndax gis nga réew mii damaa defe ne saytaane mënu fee am ndax gis nga sëriñ yu baax yi maam Abdou Aziz def fee ñaan Sëriñ Tuubaa ñaan fi ñeneen ak ñeneen ñaan fi yaa ngi may dégg ah, Sonko buñ ko nee ñëwal wuyu bu ne problème bi dafa yàgg ba mu yàggee itam coow li fayul boobu ba tey ñu ngi so wax fu ne population baa ngi wax ñi ci biir ñu ngi wax ñi ci biti ñu ngi wax yaa ngi may dégg na dem leeral rek na dem leeral te leeral mooy indi lépp bu leeralee mën a jot boppam keneen mën a jot boppam yaa ngi may dégg na dem leeral te bu mu woo kenn na kaay jàppale man mbaa kaay lii lii indi fitna kenn du ko yee dëkk bi xamuñu leneen lu dul jàmm ñun ci jàmm la ñuy yeewu ci jàmm la ñuy nelaw yaa ngi may dégg ku fi bugayee fitna te mënaluñ la dara na la yóbbu la yàlla génnee réew mi bëgguñu ko guddi bëgguñu ko bëccëg ñun daal jàmm lañ bëgg jàmm lañ wootee. Macky Sall itam moo jaboote ñëpp wàccagul pouvoir bi na ci wax na ci jàpp ba lu ci nar a am ci musiba ñu fay ko ñu fay ko ñun daal loolu lañ bëgg loolu lañ xam ma kii ah, Sonko war da wax ne duma wuy ji na dem wuy ji na dem wuy ji. na dem wuy ji rek te ànd ak teg ànd ak teey bañ a def euh, safaan ba yaa ngi may dégg kaay leen xeexle ma loolu jaboot du ko wax kaay leen jàppale ma jaboot du ko wax na na wax jàmm na def jàmm ndax jàmm moo ñu jig jàmm jàmm lañ bëgg. Hmm? doy na waar doy na waar suñu borom rek mooy jël bakkan yaa ngi may dégg bu waxee ne day jël bakkanu Macky Sall mbaa Macky Sall wax ne day euh, Macky Sall day jël bakkanam nguur jarut loolu nguur jarut loolu. suñu boroom ku mu fal da ngay jeexal rek dem xam nga dëkk bi dañoo xamul rek waaye suñu borom mooy fal mooy folli ku mu fal nga falu waaye ku mu folli nga fol nga folleeku kii ah, Sonko bu mu wax loolu loolu yëngal réew mi rek lay indi yëngal réew mi rek lay indi te dafa am ñu farak moom am ñu farak Macky Sall yaa ngi may dégg tey ji tey jii tey jii tey jii am nañu farak Macky Sall dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg de nag ku doxut mënoo xam waaye am nañu farak Macky Sall am nañu farak moom na wax jàmm jëlante ay bakkan loolu xeju fi te ni ta ngay woote dara xëy na du gën ci yow de du gën ci yow kii Sonko na daane xelam xam ne nguur jarul dara jarul dara nit a fi nekkoon wàcc Macky Sall yéeg Macky Sall day wàcc day wàcc incha allah day wàcc waaye na wàcc ci jàmm wàcc ci salaam Sonko yeeg ak jàmm ak salaam yaa ngi may dégg loolu lañ bëgg nit ki. yàlla boo ko may adduna ak li ci biiram lépp la muy doxal na nekk yoon ndax yoon mooy mooy doxal am réew euh, réew dañ koy atte ci maandu ña fa nekk dañuy fexe ba ñay atte nekk ci maandu su ko defee loolu day tax ñëpp daal di leen woolu bu ñu wootee ñu wii gis nga histoire boobu Souleymane ba mu jëlee sees bi rek Balxiis daal di xam ne ah ki rocc sama sees bi te yëgu ko kat te yëguma ko bu boo ma dem wuy si ko balaa musiba am looloo tax mu daal di dem wuy ji Balxiis kon nag ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ñun ñëpp ñoo bëgg jàmm kon ñi bëgg jàmm ñëpp ak fu ñu mën a ne nañ wax balaa histoire am bu ko defee bu amee sunu réew ma yàqu ñoo ci yàqule ñun ñëpp te loolu mën naa ñàkk bu fekkee ni nit ñi parce que nit moom fu mu toll dina am ñu muy déglu ala kulli al dina am ñoo xam ne bu ñu ko waxee mu dégg su ko defee ñooña nañ jóg bu ñu waree wax ak pouvoir bi nañ ko wax ak nañ wax ak moom bu ñu waree wax ak Sonko nañ wax ak moom ku ñu war a waxal nañ wax ak moom ngir histoire bi daal di fay bañ a am ndax loolu mën naa am ndax na moom baaxut jàmm rek gën lépp luy xew jàmm ci gën